bismillahi wa ala millati rasulu man hajil qadim santate war ci man ci saa su nekk yàlla mi tax lépp lu nekk nekk ku tedd ki moo ma saa su nekk dee di sant ma waral sag nekk moo tax may sant ci guddik àjjuma ji te di ko ñaan mu saxal lépp lu ma ji jumaada bi bii soga teru yàlla ci sëriñ muntaxa gën a beru waxin la ngir maamam borom poroxaan moo ko baaxee soreele koog ay caaxaan ñuy ñaan ku tedd ki ci turu maam jaara balay déwén fépp maase di daara ñépp delloosi bu wér tooli àllarba yi te ñi daawul bay itam dem di bayi alale mbay dàgg na barkeel yi ci des kon nañ ci tàmbalee di eggale yi ci des ma ñëw fàttali waa nguur gi mbënnum Tuuba ngir ñu taxaw ci mu baña taati fa tuba ñetti barab ya fay ta bu nawete no ngi leen di ñaan mu baña taati bu nawate na leen jaral lu ne bu ngeen bëggee gañe bu fajiwul bu tawate du ngeen gañe ndax kon dana wax ku yore carte te dëkk tuba bu leen les pertes te kon ëllëg ca kanam ku tedd ki bu lay ramu da nga fa rus naan yéen waa nguur gi bu ngeen bëggee bañ a daanu nangu leen sëriñ tuubaa ni musta daanu